maam limaamu alayhi salaatu wasalaam ba dig ba jegee ñii mu war a dellu ci boroomam ca la génne ca jàkk ja nuyoog mbooloo mi daldi jóg taxaw jublu penku ne leen laay ndax gis ngeen lii la ñëw mag ñi ne ko limaamu li ngay gis gisuñu ko bay la ni la ilaha illallah wax ka jooy saaba yi jooy jala ni ndax gisuleen mbon mbon yii ñu dëgmal te dootul dellu ñu nekk limaam mbon mbon yi ban ak ban la taqriba imaami laay fi kalaami kama xadiisu rasulullahi saxbihimi waxtaan wi mu def ba mu feeñee dem ba waxtaan naka ak saxaaba ya ba mu toogeeg ñoom ca la leen wax ni mbon bonuk jamono dëgmal nañu te dootul dellu. bon boni jamono ak yàquteef ga dëgmal nanu wa bi na tan baadatayaati maal wara ca la bàyyi lay wax ne fitna joo xamante ni buy ñëw ci mbetteel la ëgsi na mawdul bu jaa mu ni di ngeen dem dee day bettel mooy ay dee yu bettel mooy am. feebar yu bono bono bono bono bon dana tas ci àdduna. ñàkk ga dana mate la. waaye feebar yu bon yu lu mel ni mbas ak lu ni mel lii ñu tudde corona parce que bàyyi lay di wax booba woote na ba mu am juróom benn fukk yoo xamante ni teg na tuuti bàyyi lay dëgmal alaxira dal dina feebar yu bon bi dëgmal na leen te dootul dellu sadaqallaahu limaamulaay ma dina fi kulli ma xaloo lay wax na dëgg ndax moom lu mënu musa wax rek gis nañ ko bapraat loo wax alaw ya raxmaanu ay buur wàllu ma xannaanu ya man ay buur yàlla faale ma yow mi borom ma yeeg teraanga yi suñu soxla yeeg suñu coono yi jaaxal nañu jooy naa yow yàlla yow jooy ba saa yaa ngi loru wane na ma dox ba wut beeg wër di seet làggal na ma waay waay samaw tiis wi not na ma mm-hmm. sama xel mi battana ndax ay xalaat wuy ma saman sama xol bi yow mi rek la yaakaar yàlla wallu ma su ma sàgganee bàkkaar yi tax ba nga jibbi ma ñaaw téefi yàlla man soppi ma su ma julliwul azakaaluma alal mbaa wooruma du la wàññi leen kon booy joxem koom yàlla gëstu ma seetoo ki jiim di nakaral ki ñaan nga xam ngay buur bu baax yàlla wuyu ma yow rek yaa am mbaax gu toll ku dem ba ñëw mm-hmm. lu mu ñaan nga may ko samay loxo ngi yàlla gessuma mm-hmm. ab jaama ngi ab jaama ngi xëy soxla yaakaar sam ndimbal uh-huh. ngay buur bu baax te lu dul sa xéewal yàlla bëgguma allahu akbar soo gantalee sama soxla yi man fu ma koy waxe ñaagal barke Mustafa te nga dolli ma ay yàlla bu lo loolu lépp a neexulee kon jarna naa ci xayrul xalqi loo yor moo ko moo ci moom xanaa lu mu ñaan nga may ko ko wóor na ma ku la jaar ci Moustapha lu mu ñaan nga may ko ko wóor na ma ndax yaa ko yor laabal xolam lii biir ma subhaana rabbika rabbil izzati amma walhamdulillahi rabbil aalamiin defe naa ni foofu ngeen toog seen xol sedd na suñu yéene du woon dara rek lu dul bégal leen ak fàttali leen ni ñun ñëpp rek ay jaami yàlla lañu nanu def sunu bopp ay jaam te nangul buur bi